ñëpp dana bokk ndey bokk baay diine gi bokk ndey bokk baay kon lu Aziz def ni tey loolu tamit ci la ndax boole na tey lu bari waaw boo xoolee ñu fi ñëw tey tiijaan a ngi fi xaadara ngi fi ñaseen na ngi fi laayeen na ngi fi ñëpp a ngi fi tukulóor séeréer ñëpp ba njaago yi sax ànd si délégation bi loolu man ni Sénégal ñoo bokk ndey bokk baay kon Abdoul Aziz dañ koy ñaanal yàlla yéen tamit sëñ Tuubaa bu ñu yaakaar ñun yal na ko yàlla gën a jëme ci kaw ak njabootam yëpp ak famiyam ak magam masata ak papaam ñëpp ak ñu fi ànd ñëpp ñi si ñëw ñëpp si délégation dem tam ñu ngi leen ñaan yàlla na yàlla defal jàmm parce que ñu ngi ñëw man ak Omar Sakho ñoo ànd Balla Gaye Lirou Diane ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñoo ànd ñëw ci délégation bu gungee sunu frère sunu lépp muy Aziz Ali Ndiaye di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal sutura defal ko xéwal bu ne yàlla na gën a man lu raw lii ci barke Sëñ Tuubaa gisante ngeen sëñ bi waaw sëñ Mountakha yàgg naa ko gis xam naa ko bu baax boobu nekkul sax xalifa ndax man yàgg naa nekk sëñ mu dem sëñ Mountakha sëñ Mountakha sama sëriñ la sama xarit la sama lépp la waaye nag sëñ Touba dafa am kenn ku nekkum la jox man nag sëñ Mouhamadou Habib Mbacké mooy suma lépp mooy suma sëriñ mooy suma lépp ci moom laa jëbal di ko ñaanal te xam ne incha allah bu ñu jógee fa la ñu jëm ko après dellu ba alxamis ci guddi gi incha allah ñu doog a ñëw màggal si doole sëriñ Touba di ziar ñëpp di ñaanal yéen tamit ndax yéen a ngi nii li ngeen def tamit lu am solo la parce que boo leen gisee lu baax loolu dafa rafet te dama leen di ñaan rek Euh, bu kena kenn dugal ci lu ñaaw ay julit nanu ndax yow ma xiyam te ba nit bu waxee sax lu bon defar ko ba mu rafet def ko ndax yàlla lay fay métier bi nga nekk si ngay jaamu yàlla kon yàlla ne yàlla suturaal ba ngeen am télé am ci barke ci barke gi lazi fi kulli wa fi safar hamani hala mal absa wa safar صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر